que daa ah, ñaar ñii ni ma leen gisee ñaar ñii ni ma leen gisee. borom écoutez Pape Diouf. ba le 7 janvier. le 7 janvier si lay. waaw le 7 janvier si jom waaw waaw waaw. ñu seen bopp ci bis bi. ñoom mu eh. loolu dañ ko. nga bàyyi ko mu li si taw di wër. prison yi tey tey dafa tey dafa seet. boobu ba léegi ma ne tey dafa seet. yëkkati na loxo yi Lamine Lamine ñu ngi nuyu ñu ñu seetaan yëpp. fu waay mën ci àdduna bi. war fu waay mën a ni muy waajee bu fekkee noonu la demee bëre bi du yàgg de. arbitre sifflé dama ne la gàmmu gën bi taxawaay gis bu mu ci kaw. ñaari ngi ku ci nga sa adversaire. nañu te jege yoo bëre. diggante gàmmu ak ñaari pied gay. ñu war ginnaaw noonu Tapha lañ jàkkaarloo mu ngeekoo ngeen xeexee mu neex bu ngeen bëree mu neex. mbëru Golo ak mbëru kii ñoo leen yoroon musculation. dafa jóge ci victoire bu rëy digganteem ak Liss Ndiago. ñaari pieds droit lañ. ku gën a gaaw ku gën a gaaw mën kii ci defar la ci Lamine kii ci victoire waaw moom moom gàmmu ci defar na jóge ci door nañ ko. dafa mbër sànni na. dafa mbër yaakaar naa ni loolu mooy arrangement dox ci kaw adversaire bi. waaw jekkuñ fi kenn kenn lañ fi jekkuñ. Boucher mais mais mais kenn jëlu ci initiative. kenn jëlu ci benn jeexalul bëre de bëre xeex moo koy jeexal ak bëre. dinañ xeex jëm dinañ. na ko la. déedéet. ko bul yàkkamti. bu mu kee tam ko nee xaar ko bul yàkkamti. mais bëre du am. Malick Ngom nee na ñu bëre. bëre du ci ñàkk. dara mi borom Thiès. ñu ngi ziar ñuy suivre. Guèye. Lamoune Sarr chargé na ko daw nañ jël la mu tëru ko door na ko perkit door ci ma ngi koy door ma ngi door Gama ngi door Gama ngi door Tapha ngi wër bëre Tapha ngi wër bëre Gama ngi door Tapha ngi wër bëre gis nga nee naa la Tapha ngi wër bëre Gamou Gueye Tapha mbër laa ilaaha illallaah Gamou téye na fu sori jàppante nañ Lamine sëq na ca ngemb la moom Gamou Gueye Gamou téye na fu sori Tapha dóor na benn mberkit Gamou Gueye jàpp na Tapha mbër jàpp na ñu ngi xeex suuf ndax ba tiwar ndomb du am Gamou jàpp Lamine Tapha mbër ak Gamou Gueye Tapha dafay cekkati day génn waaw loolu ca làmb la bokk waaw ku jekkati bu di jamono fexe noo jekke jege nañ saako yi. jege nañ saako yi tàggale na leen arbitre tàggale. arbitre yi comme buñ bëree fii bu jël amee ñu ne jël amul. waaw kon kay buñ fa yeggee nañ leen atte buñ fi yeggee nañuy atte. mais tey dafa tey dafa mel ni benn saako lañ def jamay ke ñaari saako lañ def. non ñaar fi nekk. ah ñaar la. règlement bi ñaar la. man daal dama ne euh, seen waay yi tàqal nañ nag coowu saako. seen waay yi indil nañu géew bu yaatu nañu génnee saako yi. nañu génnee benn saako gàmmu gàmmu fi nga téye baaxul de Tapha mënul liggéey parce que loxo bi dafa kawe gis nga loxo bële na loxo bële gaa mu ngi def ko bële. ñuy bëree nii wóorut mën nañoo sëkkatal mbër mu mu dëgg ci ay saako bëri leen ci digg géew bi. gàmm nag bu doon tapale kat koy ba max rek jox avertissement. Tapha buuse laa koy buuse. buuse. daal ku ci mën a ñëw na gaaw rek. aa mu kan buuse. ah kooku ndaanaan la. biit rek. Lamine gis nga yu ci bëri boo ko boo ko dajee ak nga ci ah. way waaw liggéeyal. da koy dóor mu daan de. bu ñu xeexoon Gamou Gueye. Gamou. mi. muy problème am Lamine. dafa Gamou. droit. waaw aj garde ca kaw. ah deful dara. mais da nga war a xeex ak moom tibb ko ci suuf lamb ji jeex ah mais. day na waar gàmmu day ragal Tapha Mbeur song ko ci suuf. waaw ah, ah non mais gàmmu aussi comme avantage na day am ñaari xel ñaar naa gérer combat bi su ma gisee lu yaatu may supplanté ko su ma gisul dara ma téye sama bopp temps bi léegi mu jeex ñu jox ma sama drapeau ma ñibbi moom it loolu lay indaale mais mais marabu Masila mi ngi lay nuyu. maa ngi koy fay Masila Diop. Ah, Masila Diop waaw. Eh, bu fi fi ah. fi fi bu musiba ah. man na fi am. ah. mais ben essa da nga nan ñaari mbeuri sax kenn bëgg ci jappante bi. non bëgguñu ko. daw na songu. mbër kilo yi bëgguma ko ci lamb ji. bu dafa am moo war a jël initiative. bu dajee bu dajee kanam borom toog. dafa am moo war a jël initiative. parce que bëre bii ma gis nii bu ñu góorgóorluwul lool lool lool lool ci avertissement lay lay jeexee. ñu ngi ci tànk voilà ah gis nga ko ña ngay négocier war koy négocier. ña koy ah ñi ngi ah. dafa am bëri gàmmu kay ku ci nekk saq nga ci sa ngemu morom. jeex làmb ji jeex na. làmb ji jeex na. làmb ji jeex na voilà. làmb jeex na. jeex na dañuy jox drapeau bi. gàmmu da koy jël. demal ci le ah oui da koy jël. làmb ji jeex na. jeex na dañuy jox drapeau bi. gàmmu da koy jël. demal ci géew ba. yóbbu bu ca géew ba waay. lu xew ah da koy jël. mais nag Tapha Mbeur nag jëlu benn initiative nag ci combat bi. jëlu benn initiative waaye. vraiment. làmb ji jeex na.